Euh, maa ngi leen di nuyu di kontaan ci ndaje mi ñu def tey di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi toog imaam Ousmane Dia bu jëlee parole ñaan euh, yaakaar naa ni euh, mën na représenter imaam yi nekk ci dëkk bi yëpp. di nuyu jigéen ñi parce que tey moom xaw ma parité mais imparité moo fi am parce jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi. <laughs>

que ñu wax ak Faut que ñu wax ak ñom élection présidentielle rendez-vous le ak l'a laaj réew mi ak wa réew mi mais nous devons, du luñuy joxé man bokuma yalla dogalo ko ci mais du ma ki kii Nous da ngay xol da ngay Nous sénégalais yi ñu ki leen doy ci li may wax nii wax naa ko ay kilifa El Malick Ndiaye bu Pastef sama xarit la waxtaan naa ci ak moom matul une semaine ma ne ko mais Déthié xaritu Ousmane la. am na ñu am na ñu ni ñoo gën a jege géej Déthié moo leen gën a yéene Ousmane man xam naa loolu. te li ma wax noonu moom laa gëm lenn rek mooy différence bi. du candidat buy démissionné pour jox Ousmane Sonko loolu du ko engagé wu bu jotee réew mi day dem ba mandat bi jeex. mais bëgg Ousmane Sonko jàppale la nga dem ci moom ne ko non man sax soo ma jàppalee su ma gañee benn at laay def jox la mais loolu ay waxu caaxaan la duñ ko def. musuma def interview bii mais dama bëggoon wax ak waa ngi ko wax tey tàllal leen loxo wax na leen man. Euh, li may def nii di ko xeex dugul sama bopp yàlla xam na ko waaw dëkk bi am na lu bari loo xam ni mu ngi ci yoon benn firnde rek laa ji joxe découpage u département bi day nekk débat après 2024 ni ñuy daggee département bi parce que ñu ngi ciy liggéey ñu ngi liggéey ci découpage bi man buñ ne man ki ko wax dafa war a bokk sinja ko nangu mais luñ ma mën a wax luñ mën a wax ëllëg la ah foog mu am taxawaay de xale bu fi bëgg a gañe boo gañee na nga régler loolu mais gañe rek dem toog sa kër taal ataay na non gañe naa maa liggéey donc voilà gars yi ne la bon léegi après gañe nga ko léegi après ah. mais bu fekkee da nga bëgg am ambition pour defar dëkk bi naga nga préparer sa bopp pour que jafe-jafe yi nga mën ko régler hôpital bii nii avancé naa ji mooy fi saer bi nekk foofu def hôpital na sama accord yu ma wax bu ñu yàlla dimbalee ndam Déthié va le faire il va réaliser te 10 milliards la Ngeko dafa dem ba gëm ba ci MK excellence bi réserve de Bandia ci ngeex la war a bokk bëgguma tudd gàndigaal nag parce que damay bañ Cerno meram wax di bokk si xam nga aussi ten tubaab ngëriñ ah ci waxtaan war na mën dugg ñu def benn commune bu mag maintenant nag bu da nga ci élève nga fa élève nga ci kuréel gi professeur yi ngay liggéeyal rek man ngaa gañ a ngi wax doon élève mais professeur du département Mbour yi ngay liggéeyal ëllëg ci ñoom ngay toog rek loo bëgg ñoom ngay dem wax te man nag wax dëgg yàlla yàlla dogal na sama parti laa yor te dépassé naa département bu ma yàlla indiwaate ci département aussi man nangu ko damay wax ne Euh, saa yu ma xëyee damay ñaan yàlla rek mais bu leen ma gisee ci baar bi may naan sàngara man la de yàlla moo ko dogal ci man de waaw mais dama koy ñaan mu bañ a am parce que doomu aadama yàlla mooy xam ni mu kee doomu adama waaw mais saa yu ma jullee fajar damay ñaan loolu bañ ma dal mais su ma dalee nag yàlla la waaw moo tax faqastalu maanaam ci àdduna banam du lo xamanteni ni euh, day dal ñëpp amna ñu bari ñu faqasal ño xam yalla mo dogal seen faqasal motax dal euh nañu jàppale la coalition Déthié 2024 comité électoral bi fofu lay terminer euh, ni ngeen ko installer baxna na ñew rek jàppale len mais comme dama nekk dans le directoire national duma am présence boobu parce que fi may ànd ak le candidat day bari waaw donc mënuma diriger sa campagne nekk dans le directoire national de sa campagne ba pare bëgg nekk dans le directoire communal mais dinaa leen jëmbal dinaa leen jàppale dinaa nekk seen ginnaaw te li yoroo wax rek mooy campagne bi waaw dugg ci kër yi wax ak nit ñi li ma wax nii ñi wax ko nit ñi jàppale leen ñu bu leen fi voté loo leen xamul li tax ñu ànd ak Déthié intérêt Sénégal la intérêt département bi la intérêt commune wax la bu ñu gañee am na lu bari lu ñu mën a def ci dëkk bi sunu projet yi ñu bëgg a def ah dinaa wax Déthié ñaan ko sama kóllëre ak moom mu def ko waaw mais loolu mooy tax ñuy politique politique ñu pour jël lu ñu pour am poste te gis ngeen poste yi gars yi di wax politique u poste amul njariñ parce que yi la la cay jox pour yow la ak sa njaboot mais politique projet moo baax pour dëkk bi man bu ñu defaroon dëkk bi te aw amu poste baax bu ñu ñëwaan ngay wax am na hôpital am na tali am na ay usine xale yaa ngi liggéey ah léegi kenn dematul gàndigaal di faju marché bi ñoom kii bi kii nañ ko am na am na am na am na am na kii bon donc assainissement bi baax na yooyu bu amoon ci dëkk bi ba te loolu. am na euh, euh, oh, euh, oh, ramassage d'ordures yu baax na loolu. moo tax ngi leen di di leen sant dëgg yàlla waxtaan wi peut-être guddal en tout cas merci nañu def engagement def bloc campagne bi le kaat lay diji, bu le la kaat ñu defaat rencontre fii. comité électoral bi donc da ngeen convoqué pour ngeen def réunion comité électoral pour défaire poste yi ci des bu ko nous ñu pour pour mëna def une campagne 25 février la coalition d'été 2024 gagner la commune de gagner gagné le département gagner la région gagner au niveau national